tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu yaatu xol bu yaatu tey ma way la bégal la way la bégal la boroom yërmaande bu bëri déglul te xeral lu nax salaamaaleykum mbokki faral nag seen mbokk Cissé Léral da leen ak jàmm ci seen formation photoshop suñu leçon tey ñu fas yéene ñëw gis lu ñuy wax Euh, typing tool mooy lan bind fan ngay jaar ba bind dara ci photoshop euh, changer couleur beeg façon bindin beeg genre yooyu bu ñëwoon ci photoshop par exemple euh, boo ñëwee fii di fi fekk tii tii moo nekk ni mooy pour typing pour bind donc mën nga def tee mu yóbbu la fa mooy shortcut bi boo ñëwee boo cliquer tee di nga gis yeneen option ci biir par exemple buñ ba première option bi mooy lan horizontal type par exemple mën nañoo ñëw ñu bind fii par exemple si c'est d'accord comme ça donc euh, da gis bindin bi ni la lay dikkee mën nga koo def mu nekk lan bind boo xamante ni aussi vertical la moo nekk deuxième bi nii comme ça euh, par exemple nañ def par exemple si c'est i sa xibaar par exemple comme ça donc dangay gis ne lan bind bii nii la lay dikkee donc comme ça donc boo bindee ba pare mën nga def entrée wala nga def euh, nii book boo defee bii da ngay gis ne bind bi day effacé ko day dem yoonam mais boo defee entrée bind ba dafay daal di lan nekk d'accord donc euh, bu fekkee nañ tànn bind bi par exemple bind nañu bind yooyu pare d'accord dañoo bëgg a changer façon bindin bi pour changer façon bindin bi mën nga ñëw fii donc boo ñëwee fii mën nga tànn lan ci façon bindin yi yëpp am na yoo xamante ne moom Photoshop ñoo wàcce ñoo wàccendoo am na yoo xamante ni donc Euh, donc yaa koy télécharger sa bopp donc mën nga ko mën nga ñëw fii tànn façon bindin bu la neex comme ça donc mën nga ñëw fii tànn façon bindin boo mënti am boo xamante ne télécharger woon nga ko donc ci internet bi wala wala yu demee noonu donc nga daal koy appliquer ci lan ci sa ci sa bind d' accord nañ tànn bind bi par exemple da ngay gis ni lan bind bi moo nekk nii donc boo ñëwee fii ci deuxième bi fii mën nga fee changer façon bindin bi bu fekkee façon bi nga téléchargé am na ko donc am na bold mooy bindin bu foncé trop am na italique am na genre yooyu yëpp am na ci biir mën nga fee changer fo nu bind bi nu muy toll donc boo cliquer ci kaw tee bii rek daal di xëcc ci côté càmmoñ ak ndijoor da ngay gis na nu muy changer bu la neexee nga bind fii numéro aussi bu la neexee nga ñëw cliquer fii daal di tànn lan numéro ci numéro yi donc da gis ni lan bind bi numéro xasaba numéro bi nga tànn moom la lay dikkee donc fii euh, donc fii aussi tamit mën nga fee tànn bind bi noo bëgg mu mel ko ismos mu nekk naim lu soft mu nekk cro euh, crêpe wala boog euh, mu nekk sharp wala genre mën koo fee fii mën nga fee tànn bind bi noo bëgg mu positionné ko mu daan woo ko mu nekk sa côté càmmoñ mu nekk ci digg bi wala mu nekk lan sa côté ndijoor donc mën nga koo tànn foofu noonu donc fii ni mën nga fee bindin bi couleur bi nga bëgg mu jël ko donc par exemple dañoo bëgg couleur bu bleu par exemple wala bëgg couleur bu orange donc mën nga fee tànn couleur bu la neex comme ça donc yokk bind bi up to you yaay tànn yaay choisir yaay xool ni nga xamante ne moom nga bëgg mu mel ko boo paree bu fekkee da nga bëgg annuler mën nga bës fii mu annuler bu fekkee da nga bëgg a def ok mën nga bës ok mu daal di appliquer wu li nga xamante ni moom nga choisir donc bul fàtte ni toujours soo bëggee changer genre yu ni mel da ngay ci kawam deux fois wala boog nga daal def contrôle A daal di sélectionner bind bi carrément pour nga mën a appliquer loolu nga xamante ne moom nga bëgg a def Euh, côté bi yaa ngi gis li texte bi fii tamit mën nga fee changé bind bi ni nga bëgg mu mel ko par exemple danga bëgg mu dikkeele arc comme ça yaa ngi gis nu muy nu muy mel donc mën nga koo tànn vertical wala horizontal donc mën nga fee tànn façon arc yu bëri yoo xamante ni ok mook Photoshop ñoo wàccandoo donc mën nga ko fee mën nga ko fee tànne d'accord donc euh, comme ça mën nga changer fii arc bi ni nga bëgg mu toll ko donc yaa ngi gis mën nga koo def mu nekk jóge ci suuf jëm ci kaw mën nga koo tànnee fii donc aussi tamit fii mën nga koo changer edge yi côté càmmoñ ak côté ndijoor nu muy mel ok donc vertical duration bi aussi tamit mën nga koo changer fii comme ça donc dañuy gis ni lan boo paree bind bi comme ça da lay dikkee par exemple boobu magique yaa ni <laughs> d'accord waxoon nañ léegi kon ci bindin bi donc boo ñëwee rek mën nga cliquer daal di bind mais bu fekkente ne li ngay bind lan paragraphe la par exemple li ngay bind dafa gudd donc mën nga ñëw tànn espace bi nga ko bëgg a bind par exemple da ngay def sélection bi donc boo clique boo boo boo defee sélection bi donc mën nga wàññi size bi par exemple bu la neexee donc am na texte bu ñu jëloon donc mën nañoo def copy paste daal di tànn ñu bëgg mu orienté woo ko comme ça left to right wala boog in the middle like this donc mën nga tànn lan ni nga bëgg fi nga bëgg mu raat ko fay cadré wu fi nga bëgg mu nekk fa mooy lan da ngay text tool bi boo ko tànnee daal di def lan xëcc drag and drop comme ça daal tànn espace bi nga bëgg mu nekk fa donc comme ça donc bu dee da nga bëgg da nga bëgg changer dara ci paragraphe bi comme ça donc mën nga ñëw fii am na am na yeneen i properties yu nekk ci biir photoshop donc bu ñëwoon tànn daan texte bi par exemple boo ñëwee fii di nga fi fekk properties di nga fi fekk lan paragraphe wala boog di nga gis am na beneen lu ñuy wax character donc ko boo ko mën nga ko mën nga ko coché fii donc moo nekk ni characters da ngay gis moo ni character mooy aju ci wàllu lettre yi paragraphe mooy li nga xamante ni aju ci wàllu euh, li nga xamante ni aju ci wàllu euh, paragraphe yi nga xamante ni moo ci sa photoshop donc boo ñëwee fii fi mën nga fay changer par exemple texte size bi ni nga bëgg texte bi toll ko d'accord fii mën nga fay changer texte bi ni nga nga bëgg mu ko dimension ci côté yi donc fi mën nga fay changer euh, séparation entre yaa gis yaa ngi gis texte yi ni muy duggante ci diggante ligne yi euh, distance bi nga xamante ni mooy nekk foofu donc mën nga koo kiiwee fii d' accord donc paramètres yooyu yëpp mën nga koo defee fii fii tamit mën nga fee xool texte bi position beeg genre boobu fii mën nga fee xool espace diggante texte yi aussi comme ni ñu ko waxee woon fee ne donc yaa ngi gis diggante euh, paragraphe yi comme benn donc fii mën nga fee xool texte yi seen biir ñoom seen seen diggante wala boo ko diggante euh, nu mu diggante xuruf yi quoi ah, diggante lettres yi yaa ngi gis nu ñuy séparé wonto noonu seen biir distance bi am seen diggante donc mën nga koo lan moom tamit mën nga koo régler fii nii mën nga changer couleur bi fii bu la neexee ya, donc comme ça mën nga tànn couleur bu la neex fii nii donc mën nga ko fay changer bu dee fii tamit ci paragraphe donc mën nga ko fay changer yaa ngi gis ñett yi moo nekkaat nii ci côté bi fii donc mën nga koo gisaat fii nii ak alignment yi nga xamante ni nekk nii nga xamante ni mën nga fay tànn mu nekk da koy aligner lan ci côté yi dee tolloo net donc bii da koy aligné ci benn cat bi kese moo dul am bii da koy aligné côté yëpp mooy tolloo net du am benn différence boo xamante ni mooy nekkaat seen biir comme ça euh, par exemple nañ wax ci beneen mbir par exemple waxoon nañ sànq lu aju ci wàllu façon bindin bi donc boo bëggee façon bindin mën nga ñëw par exemple ci internet boo ñëwee par exemple nga dem font awesome par exemple boo ñëwee font awesome donc fii mën nga fee fekk ay façon font donc mën nga dem ci yeneen si internet fekk fa yeneen façon font donc boo ko bëggee donc mën nga ñëw nga daal di télécharger font wala boog euh, façon bindin bi nga bëgg ok donc mën nga tànn façon bindin bi nga bëgg donc euh, boo ko télécharger donc par exemple man amoon naa façon font bindin bi par exemple yëpp ay façon bindin la après na leen ko jox incha allah donc euh, boo cliquer ci kawam boo ko télécharger ba gis boo cliquer ci kawam nga daal install donc lan mu daal di commencé installé wu donc bu installé woo nekkul photoshop kese lay dem mais yeneen application yi nekk sa wala boog yeneen software yi nekk sa ordinateur yëpp tey utiliser font da gis boo demee di nga ko fa am da ngay gis dafay installé wu par exemple boo amoon font yi yëpp yaa ngi gis nuñ bëree nii donc mënoo di cliquer par benn benn di ko installé mën nga def contrôle all day def ci cliquer sa côté ndijoor daal di def install boo defee install da gis mu commencé lan di ko installé am na yoo xamante ni déjà am na ci sa ordinateur donc mën nga def don't uh, do this for our current nga daal def no bëgguma ko installé waat da ngay gis mu lan moom mu commencé installé yi nga xamante ni mu amul sa ordinateur day gis dañuy font yëpp la lay installé ci sa machine boo paree boo ñëwee nga fekk ko fi yaa ngi gis moo tax fii ay façon bindin yu bëree bëri moo fi nekk comme ça ok donc euh, mu ngi noonu donc loolu mooy bindin yi nga xamante ni mën nga lu ñuy bindee ci photoshop ak façon bindin yi nga xamante ni ci nekk di leen jox dig daje suñu leçon yi di ñëw incha allah nekk leen si